tàggi démb mi ngi daanaka ci mboolem yi nekk ay ñu xëyandool l'observateur di ñu xamal ne juróom fukki at ak benn la amoon yoon da koo tegoon loxo doon ko tuumal ne ci force spéciale yi bëggoon a yëngal dëkk bi ca la bokk ci hôpital principal bu ndakaaru fa la faatoo ab awakam di maître Ousseynou Gaye ni xët mu njëkk l'observateur ñi faat François Mancabou dinañu ko fay ba mu mat sëkk ndax laata muy faatu donte sonnoon na sax waaye am na benn moment bu mu àndoon ak ba wax na fa même li xew yëpp ak li ñu ko def yëpp anki dina kay xëy ñu tegal mbir yàq na mu demee film de la tragédie la ko procureur de la république indi démb moom Amady Diouf procureur de la république nee na kii di François Mancabou fa ñu ko téye woon ci garde à vue da doon mbëkk grillé ak mur ba kenn xamul nag lu tax mu def loolee waaye enquêteurs yore nañu vidéo bu fukki minute ak ñett yoo xam ne vidéo ba sàkku naa ñu dugal ko ci enquête bi ngir leeral ana ci yan anam la François Mancabou faatoo maître Ousseynou Gueye di xam ne ci xët bu njëkk enquête dina vox populi nañu ci ak faatoom moom François Mancabou dégg nañu ci ñaari version am na it ay mbir yu bari yu ca jaaxal nit ñi procureur de la république bi di Amady Diouf ak la mu ca wax Sud Quotidien moom la xëy ci xëtamu njëkk ba bind ne procureur bi joxe na version ci faatuk François Mancabou François Mancabou faatu ci garde à vue tax la témoigné di laaj ndax du bavure beneen bu amati ci réew mi journal bi nañu am na ay mbokkam yu wax ne dañu ko duma téye woon ci garde à vue ñoom la ñu ci joxar bi baaraam tuuma journal na fa nañu en tout cas bari nay kàddu yu jib ci réew mi yoo xam ne li ñuy sàkk moo di état bi leeral yëf yi Clémentine Coly di jabari ndéem si yàlla François Mancabou di wax ni mu fekkee woon jëkkëram ja keroog ca urgence François Mancabou muy faatu ak Pape Mamadou Seck mi rëcc ci Le Quotidien nañu loolee beneen gàkk-gàkk la bu spécial ci ndoddal état bu Sénégal administration pénitentiaire bu def na démb ab conférence de presse leeral fa ni mbiri Pape Mamadou Seck demee fa mu jaar ba toj kaso daw franc bokkaande ne li may ñaan Pape Mamadou Seck moo di mu dellu si am xelam ñëwaat ñëwaat ngir ñaar benn moo di mu ñëw faju si ndax wérul ñaareel bi di mu ñëw setal boppam famille bu Pape Mamadou Seck l'observateur nee nañu li leen jaaxal bokk na ci jabari Pape Mamadou Seck ba ñu ne Pape Mamadou Seck dafa évadé ak léegi ca la ko gëj a déggee bu ñu ko woowee téléphone ci boîte vocale am la ñu yem faatoom gi ñuy ruumandaat source waa nañu tax na Ousmane Sonko tàggoo ak sagom la panique de bi wax ba wax ñu moom jiital parti Pastef bëggoon naa déggante ak kenn ci ñaari jabari Pape Mamadou Seck yi waaye kenn ci ñoom mbokk bokk la ci maire bu daaru muxti te kookee ci mouvance présidentielle bi la bokk ñu bokk daje ji ca ndar le mandat nee nañu aéroport ba ñu fa doon tabax pare na ba njiit réew mi Macky Sall ubbi ko démb tuddee ko ndem si yàlla Ousmane Masseck Ndiaye aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis noonee la bi tudd moom mi ko ko tuddee di Macky Sall mi ngi xam ne ci xët mu njëkk direct ci ñiw su ne ubbeeku nañu ngir bépp xeetu partenariat pose première pierre bu hôpital niveau 4 bi ñu war a tabax ca ndar fa la xam le hôpital boobee bu pare maître Alioune Badara Cissé la koy tuddee hôpitalum ndar boobee ñu war liggéey ci ay koppar yu toll ci milliards millions mi ngi tënku ci ñaareelu axe bu plan Sénégal émergent ci at ak juróom-benn weer journal bi nee nañu ci la ko war liggéey lu mat ñeenti téeméeri lalit di 400 lii danañu fa nekk pose première pierre bi source wa nee bi candidat yu baccalauréat yi ci diwaanu Diourbel l'observateur xëy nañu ko yeggee ubbil yéenekaay bi soxna Ami Mbàkke daaj bu ministère emploi formation professionnelle taxawu na ci anam wu am solo lu ëpp ñeenti junniy candidat baccalauréat yi ci diwaanu Diourbel toggal leen añ ci ñaari fane examen yi encouragé leen taxawit ci seen wet fitna ji tàmbali juux ci campagne bi la Sénégal moo ñu ko wax ba wax ñu ne ci géejawaay fële fitna ji amee démb farandoo duñ ca yàqate. jërëjëf.